mi kenn mënu la gagné ci élection yi Macky Sall wala ku ko wax amuloo xel voilà daal li ma leen bëggoon